Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo di may seen de presse jàngeen jëf yéenekaay yépp tey dañoo wutali diwaanub Touba réew mi quotidien moom fësal ci xëtam bu njëkk màggalub Touba ak xayma bi nga xamante ne mën nañ ko ci jàpp yéenekaay bi di xam ne ni lu toll ci juróom benn million ni ay doomu aadama ñoom ñoo teewe woon bileeg woote Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké lu mooy taalibe murid yooyu lu toll tamit ci ñeent fukki délégation yi nga xamante ne ca biti réew la ñu bawoo ñëw nañu ñëw ci diwaanu Touba ci xayma suñu naataango yi tamit nee ñu police moom desu ci ginnaaw benn yoon ndax lu tollu ci ñeenti junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak benn ni ay agent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ni ay oto waaye tamit ñaar fukk ak benn ni ay moto moom la ñu daal di mobiliser ngir kon watu kaaraange askan wi foofee ca diwaanub Touba ci diirub màggal bi sapeur pompier yi tamit wane seen bopp liggéey bu mucc ayib la ñu def nee ñu tamit lu tollu ci téeméer ak juróom-ñaar benn ni ay accident lañu ñu daal di wàññi bakkan yu corot nag tollu nañu ci juróom-ñett ngir xeex ñàkkum ndox mi kilifa yi tamit euh, taxawuñu ci benn yoon réew mii duñu xamal ni lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom ni ay camion citerne moom la ñu daal di mobiliser foofee ca dëkk bu tedd ba ngir séddale ndox mi ñi nga xamante ne ñooy taalibe yi yamuñu ca laata màggal bi tamit lu toll ci ñeent fukk ak benn forage moom la ñu daal di fexe ba ñuy daw te lu ñu jot a séddale ci ndox bis bu yàlla sàkk mën nañ ko xayma ci 135 000 mètres cubes xamante ne nag xew-xew bu mag la réew mi quotidien xamal nañu daal lu toll ci ñetti téeméeri milliards la def ci wàllub chiffre d'affaires mu mel ni kon bokk na ci jamono ji luy ñoŋal koom-koomu réew mi lii sax moo tax l'évidence yéene kaay jàpp ni màggal ci boppam moom mooy xew-xew mbégte lépp ngir delloo njukkal ak sargal Cheikh Ahmadou Bamba waaye du lu ni mel la ko la tribune gisee yéene groupe des médias bi gis ni téeméer ak fanweerelu édition màggalub Touba bi moom ci ay jafe képp lañu ko li ko waral bokk na ci accident yi nga xamante ne wàññi nañ ko mu tollu ci téeméer ak juróom fukk ak benn yéenekaay bi di xam ne ni fukk ak benn doomu aadama ñoo ci daal di ñàkk seen bakkan leneen lu la tribune fësal mooy ñàkkum ndox mi ci quartier yu bëri ci diwaanub tuuba ndoxu taw mi tamit nga xamante ne nemmeeku nañu ni taana ci gox yu bëri yéenekaay bi fësal na yi tamit kàdduk Macky Sall jëmale ko ci askanub murid ci diirub màggel bi ab xibaar bu fësoon ci màggal bi tamit ne dañoo lankal ay ganub Touba amal ca hôtel King Fat Palace loole ki yor kàddu ko sëriñ Muntaxa Mbàkke di sëriñ Bass Abdou Khadre daal ne koy weddi ne xalif bi ci boppam musuta jébbal lettre kilifa yi ci wàllub dalal yooyu lay gan Sénégal di dalal ab centrale électrique di West African Energy le peuple yéenekaay moo ko daal di fësal ni ki tey yéenekaay bi di xam ne ni kon bile centrale am na capacité bu toll ni 366 mégawatts bi tax ba ñu mën a jàpp ni mooy centrale bi gën a mag ci Sénégal te ay doomu réew mi daal di koy liggéey ci seen lëkkaloo Senelec jamono ji nag mën nañoo jàpp ni lépp yemb na ngir mu daal di tàmbalee liggéey te dañu ko fas yéene taal kon ci weerub septembre bi ñu dëgmal bile centrale nag jàpp leen ni lu toll ci ñetti téeméeri milliards moom lañu ko liggéeyee ay milliards yu bëri le Air Sénégal yorel ay kuréel compagnie bi nekk ci jafe-jafe yu tar moo tax réew mi quotidien di ñu xamal ni boo moytul dinañu ñàkk ci loole lu toll ci ñeent ci seeni roplaan ñi ñàkk dëgg mooy ñi yëngu ci wàllub aar bi kii di Aziz Dabala yéene group groupe Rewmi Network bi tamit dikk na tey ci li nga xamante ne moom la autopsie bi ñu def daal di fësal mu ñuy xamal ni gannaaw examen yi nga xamante ne def nañ ko ci fecc kat bi wane na ni kon moom Aziz Dabala danu ko jam lu bëri yoon ak ab arme blanche loole moo jur lu ñu duppee ab éventration wàllu tàggat yaram ak Rewmi Sport mi dikk ci ndam li nga xamante ne Edouard Mendy ak i ñooñam démb am nañ ko ci bëccëg bu njëkk ñeel Saudi Pro League Al Ahli di équipe gardien de but bu Sénégal bi